nañu dox ba suñuy tànk nañu sax mën naa ne ñu ñuy kuy toroxal waa kër kuy toroxal waa am na yoo xam ne kenn du ko wax bétis euh, yeeg bonis yi da koy denc bàyyi ma am na bonisam bu ma yor boo xam ne nii ah yor na sama bos kon ñun ñu kàr ko foofu bu ko defee ñu ngi sant jigéen ñi toog muy waa kër gis ngeen bés bi ku yàkkamtu nit ñi am lool yéene ci moom ba mu xam ko at mu jot muy jël bés bi di ko dara ay soppeem ren nag ki mu jiital ci ñi mu dara jaal bés bi mooy sunu baay ki nga xam ne moo jël lépp ne Serigne As may dund may dee sama njaboot yow yaa ci doy loolu lu ma fekkee ci àddina du wax lu ma xam sëriñ As nii toog naa mu toog sëriñ Mamadou Diaw wax ni ko sama njaboot gii sa papa Baye Daara Kandji mu ngi fi njabootu maam noo ngi fi waaye sama njaboot gii may dund may dee sëriñ As ma ci doy mu jël bés bi dara jaal ko ko. yaakaar naa loolu lu foor la Baye Mamadou ñëw na ànd ak njabootam ji mu am yëpp ñu xam leen ñoom ñëpp ñu ci baas mbégte Seydi Hadji Malick ci nawleem yi nga xamante ne woo na leen yëgal leen bisam ci suñu bis ñu ñëw bàyyi seeni yitte teew ànd ko ak moom tabaarakallah Sëñ As bu yóbbantu kon ay kàddu ngërëm ku ne xam na ne bég na kon nag loolu du jar ñuy guddal waaye di nuyu ki fi teewal xalifa bi di sëriñ xab sëriñ Habib muy suñu baay alxaaji Cheikh mu ngi suñu gannaaw ànd ak suñu baay sëriñ Babacar Kanji ànd ak suñu mag sëriñ alaaji kànji ak mbooleem ku teew rek nekk ci ronam waaye di nuyu monsieur le maire mu yóbbaale mbooleem koo xamante ni kilifa aadala la te nekk ci jotaay bi tabaarakallaahu nii rekk la ndax juróom-benn xàq yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne jullit bu nekk dana ko topp moroomam lu mel nii ca la bokk bokk na ci bu nit amee yokkute nga ndokkeel ko bokk na ci bu nit amee xew-xew wu mel nii wax la ko nga dem fekk ko ndokkeel ko ca bis ba bokk na ci bu amee naqar nga taxaw ko defal ko fa tabaarakallaahu lii ngeen def nag ñun ñu sant kañ yi ñëpp bëgg nañ ci ñun ngeen ko defal di gën a ñaax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci quartier maam Thierno Kandji muy murit muy tiijaan waaye rawatina taaliba Cheikh Seyd Ahmed Tidiane yi lu ñu gën a fonk kër gi nañu ko yokk dafa am ci sama kilifa yi ci sama mag bi pour doon waxtaan ak benn kilifa goo xamante ne bokkuñu tariixa mu ne ko seen quartier bi bokk na ci li leen jàpp mooy kër cernukaan yi dañoo lewet lool ñu leen di fawee bokk na ci li leen jàpp te nag ku ne xam na ne wulliyu téeméeri bët la ko yàlla dénk buy dund quatre-vingt-dix-neuf bët yëpp mu ngi koy xool ca barzaq benn bët bi mu koy xool ci àddina waaye bu yàlla jëlee ruux gi ba mu dem barzaq téeméeri bët yëpp da koy wëlbati jox ko njaboot gi suñu maam Thierno Kañ radiyallahu di wëlli boo xamante ne képp kuy wëlli ci réew mi ñuy wa naw sag wilaaya nangu nga ko ak wilaayaam mu nekk mag moo xamante ne ca mag ña la ndax ku gane àddina 1840 doo gone Seydi Xaaji Malick nawloo ko tafsir Alaaji Ahmad Baro nawloo ko suñu maam Cheikh Ahmad Bamba nawloo ko may wax ne bu jamonoy loolu jotee ba sedd mi sonal nit ñi kenn ku nekk daay ba la jege moo la mën a jaar te ñun Thierno Kandji mooy suñu sens kon damay gën a ñaax sama bopp di gën a ñaax ndaw ñi sant Kandji waaye di gën a ñaax ñi dëkkee ci quartier bi su maam surtout ma quartier Thierno Kandji nañu fonk kër gi gën a jox kër gi xarma sama message du sori. ndax maam na ñépp reconnaître nañ ne dayratu fadilatu maam Thierno dugg na ci bu ñu meree yàlla mer bu kontaane yàlla kontaan kon ki ko fi wuutu jëmmi maam Thierno Kandji radiyallahu taala anhu la yor ndax inna rasula bi xadril mursal ixtatim mi ci jamono yii yëpp bu ñu gis ku sant Kànji mu maase ak nit wala mu tolloo ak nit jamono ñu roof ko ndax olof njaay dafay léeb na lu waaye gàtt dégg-dégg xam ne doomi jaan jaan la te maam na amul lu dul njabootam gi Cheikh Seydi Mouhamadul Habib moo fi nekk nekki fekki rakkam ak i doomam ak i sëtam kon li sama bàyyi sëñ Mamadou wax ca suba moom rek laay firndeel waa quartier bi man de damay ñaan te yàlla tax lu ñu gën a mën a xormaal kër gi nañ ko def ndax lu ëpp weer a ngi nii bis bu yàlla sàkk fii ci mbedd mi dinañ fi tàllal musique te kenn ñiy tàllal musique kenn ku nekk boo ko tànnoon topp ko ba ca biir njabootu maam Thierno Kandji baayam ca maamam ba ca moom njabootu ceenu Kandji xalifa maam Thierno tëdd fii ñu teg musique bi muy jolli ba une heure du matin te ñu war a nekk seen kurus te ku nekk xam ne ne kurus la bëgg nañu gën a xormaal kër gi nañu gën a wekk kër gi kër Thierno Kandji damaa dégg Pape Serigne Mamadou mu ne ku sant Kandji na fonk maam Thierno bu ko fonkul ba mu daanu da ngay ànd daanu ak moom mën la man nag dama ne ko xëñ na dafa baax sax ne bu daanoo waaye Thierno Kandji du daanu ndax góor gu liggéeyal yàlla la ba Seydi Xaaji Malik neetu ko ne ko fa dairatun ihaatati man xawaaha alayhi sabru saabiru kalkiraami dafa guddi moor wallaay dafa guddi dafa guddi te damay damay tënk dafa guddi nañu gën a wekk kër gi man loolu mooy sama message nañu gën a fonk kër gi ndaw ñi ci quartier bi nañ gën a fonk kër gi ku ko ci fonkul barki Cheikh Seydi Ahmed Tidiane di nga ko gis ndax maam Cerno yàllaa ko nàbbil na ndaw ñi gën a fonk kër gi na ndaw ñi gën a fonk kër gi man message boobu laa am ci li may lancé ci turu Seydi Hadji nag sant na gërëm na mbooleem koo xamante ne bàyyi na ay yitteem bàyyi njabootam bàyyi këram ñëw teew fi ñu ngi ko mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm ci turu Cheikh Sidi Mouhamadul Habib mi xalifa bi ci turu baayam Serigne Pape Thierno Kadji bàyyi Daara ci turu suñu baay alxaaji Cheikh mi toog ci turu suñu baay Serigne Mamadou Kandji mee ca kër ga ak mbooleem ko sant Kandji